waaw Adima ci kaaw bu ñuy terminé mooy kaaw chirurgie bi ah parce que am na yeneen cas mais je pense que chirurgie esthétique tey moom bëgg naa mu nekk message bi parce que dañu gis que ni phénomène la boo xamante ni aussi mu ngi def ay ravage euh, fii ci Sénégal donc dégg naa que ni jigéen ñi Sénégal léegi dañuy dem ci dëkk nasaraan si di def ay chirurgie esthétique di yokk euh, ci kaw ak ci suuf léegi am na ñu ah, pays Afrique ah, ah, Sénégal am na fi ah d'accord donc euh, mu nekk loo ne docteur bu koy def juste pour bañ pour ko wax rek mhm. parce que publicité lay doon man de dama cee gis ab photo buy tër ñu ñu ne diw yow de boo te diw boobu avant ne <laughs> mel ni grand théâtre aji chirurgie esthétique bi mu demee noonu loolu ci mën bi lan laa ci mën a wax mel ni dama def chirurgie chirurgie bi en tout cas yàlla nam la bindee bàyyee ko noonu man loolu laa wax mhm. chirurgie bi meilleur mooy ñam peg saabu day wàññi feebar dañ ko doon jàngee français ak fonde xam nga ñu dàmp la dàmp ba war waaye luy ndey jàpp say mbàq di ibbi jàpp say famb di ibbi jàpp say wàq di ibbi man man dama mënta concevoir bien vrai rafet na et tout mais amul mucc parce que après dina def gàmb yoo xamante ne nii mhm. mën nga cee sax ñoox bu teel te aussi amul finition encore une fois jekk jaru ko mhm. ku ci nekk nee naa li jekk ci nit nee na ko mooy mooy mooy xol bu baax mhm. ak des gestes à honorer am jikko bu baax am le bon cœur d'abord ah ba pare tamit sa taar mën a feeñ ba pare lan moo tax jigéen ñi bëgg yokk kenn xamul parce que xale xale góor yi boo xëy kii dafa yàlla tere man benn góor jaraluma ko bëgg yokk kaw bëgg yokk suuf bu yeboo ma mel ni <laughs> adouase <laughs> barke Serigne Touba dara ajimaas dima ci jaaxal léegi mooy chirurgie bi nekkatul ni xale yi rek ñoo koy def da ngay sentir ni même ci yenn kër yi ay kilifa nekk ay magum jëmm dañuy def li nga xam ne moom mooy surisi ah tudd ñu tur affiché nañ photo xam nga li yóbbu di formation nit a police <laughs> ban ban photo lañ affiché ni ah, baax na photo kan la gis nañ ko non lii mën nañ ko reprendre parce que Seneweb ñoom ñoo non non mais c'est pas normal kenn amul droit affiché kii jàmbur ah foofu la ko foofu la ko xaw ma ko de. Sara Sara Sara la parce que. sama xarit ni ku baax ni ku jongama. <laughs> non moom lañ si moom la ñu remarqué ci moom la ñu Léna Gueye te ñoom la ñu wax ci moom la ñu remarqué ni dafa def chirurgie ratée. Mhm. mais ci seen plateau aussi am nañu ne gis nañ ko face à face. Mhm. mais li nit yi wax ak li. man gis naa ko face à face kin faat. Mhm. xale baa nga jongama mel ni ko neex amul benn chirurgie ratée. kii tubaarikàlla champion yi moom la ñuy wër. kapp yi moom la ñuy wër mhm. kii dafa jekk dafa jongoma ku mu téye sa waay mhm. doo tëddee doo nelaw waxtaan dëgg ca la kii dafa jekk ah kon jongoma la du jongoma pire et original non maanaam ratewul dafa def chirurgie mais ratewul euh. dafa def chirurgie mais ratewul man xaw ma nag dafa def chirurgie ndax nii laa ko mës a xamee hmm. nii laa ko mës a xamee jekkaayam bi gisoo ñëpp a ko bëgg macha allah ñëpp a ko mhm. wër macha allah mu ne ku baax di def prêt à porter boo xam ne dugal tiktok am law cat laaw la cat man xam naa ñi def chirurgie Cerise yi raté ba seen wéññi ni marakis. <laughs> xam nga leen man xam naa leen su ma yéexee léegi affiché leen tudd leen te firi ba dara baaxu ca ñaka mel ni ay xandaran jaas ak guitare. <laughs> mais d'habitude Cerise bu raté moom naka lay manifesté woo. sa taat yi day mel ni saako di <laughs> batar batari lépp wàcc. voilà Cerise bu raté. Ah! bi raté la wala. man de xaw ma yow de en tout cas moom. xaaral ma xoolaat ko yow bi nga yow. ma wis la jëm non il faut ma dem defi Cerise damay dem damay dem damay dem. ah ay wax la bëgg xam nga damay dem damay dem il faut ma dem yokk ji hanche yi yokk ci kii yi xam nga baax parce que xale yu góor dañ bëgg yooyu mais xale yu góor ñi bu ñu waxee am am risque tamit nag ami seetal <laughs> ci yàlla oto baa da ngay da ngay tëgle ak kii kole da <laughs> ko góor ñi bëggee te mu am risque maanaam risque bi mooy non c'est dangereux mën nga am problème tous les moyens sont pour pour rafet lan mooy loolu nit ki boo amee bon cœur sangu ba set. defar sa bopp mhm. canaliser. gëm sa bopp nekk jigéen nekk femme africaine. gëm sa bopp. ah papa yow dinaan ko wax dinaan fondé ak ruy. non non fondé ak ruy c'est des deuxième chose <laughs> danga naan say sa bàjjen ñoom ñoom ñi amul. ñu dàmp la nan dem ba seen bàjjen. Uh-huh. poñe leen mais macha allah man ni ma ne ko ni ma yàlla bindee soxlaatuma ci dolli dara. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. mu Collé nag mi ngi nii toll ni grand théâtre rek ba <laughs> gis nga ko. ah xam nga mi ngi lay tooñ. ah wax da ngay da ngay moom mii tuñ ko am mii a affiché. <laughs> mais man d'habitude d'habitude chirurgie esthétique ci euh, ci ci star yi. Euh, ay Amérique Europe lañ ko daan gis quoi te ñoo xamante ne sax dañ daan dem sax ba jëm mag après ñu defaat ko pour se Euh, mais Sénégal moom dañu gis que dañ koy rajeunissement bi gën a gaaw ah, ko yokk nag mais rajeunissement bi gën a gaaw mooy que ni en traitement avoir une hygiène de vie mhm. manger des fruits faire du sport des légumes faire du sport mhm. et avoir un bon mec <laughs> c'est ça ah qui te pose pas de stress ah qui vit avec toi toute tranquillité sans stress avoir un bon <laughs> e e e mec c'est-à-dire sa jëkkër pas Franc je précise bien mes mots je précise bien encore mes mots je pas une dama déggul woon rek arrêtez rek avoir un bon mec agnon surtout agnon ok surtout pas des pas pas des pas pas des pas qui ont beaucoup de wëñ qui ont beaucoup de wëñ pas des par qui ont beaucoup de wëñ et aussi qui ont comme des raccords perfusion suñ tollee croisement Cambérène Pikine ngay topp seen loxo bu fekk la fa na gudd pas des mecs de pas des maîtres agnon agnon agnon qui vous prend soin de vous surtout mariage pas euh, sorti relation ça passe ça fait de des <laughs> li nga wax ni bëggoon naa nga wax ko ci olof trop oh. <laughs> xam nga am euh, li nit ñi comprendre mooy gis nga jigéen dafa am âge boo xam ne boo ca tolloo boo doon def service bi gën a fort ci àdduna sax sa kanamay wàcc mel ni kabas mhm. am nga benn âge bi donc nañu nangu mag ñëpp a koy ñaan bu ñu mhm. ñaan gudd fan ak wér gu yaram yàlla suñu mayee gudd fan dañ ko war a sante suñu borom subhanahu wa taala nga xam moom moo ñu sàkk mhm. te nit ku nekk ni la yàlla bindee da ko war a sante yàlla ah. ku ne am nga ci sa yaram yow moom yaa <laughs> fii gis nañ fi ñuy pause en ba màggal ba bu ko defee bu ñu demee ca dal ba di naan sama tenue entraînement la ñuy seet. te ancien benn pët bee dem ñu fóot épaulettes bu ñuy dox mel ni Mickey santal yàlla li la yàlla def lii fi dal nit bëri na te mu mënu koo wax. fii <laughs> est-ce que nit la. basa basa kaabi jeex na <laughs> Alima Sën nekk naa la loolu lu <laughs> ñu ëppale njëg mën na ko def <laughs> su may dugg nii lay tëlee waaye boo ma ko defee tee ma jënd sama ñaari ans maa la a tëlkee dinaa la ba nga xoos si bunt bi <laughs> lii Fatou am ma romb nit ñi naan ma mënoo ay kii kii nit la. gudd fan. jege ma rek nga xool ni ma lay yàlla nga ko <laughs> jaabante ko ñëw tuuti sonal nañu la dans la réalisation tuuti sonal nañu ay tanta ay bàjjen ay yaay moo ñu mën a jur <laughs> am na koo xamante ni ba mu juddoo ca Kébémer te moom ca la sa la jot <laughs> ma tudd mi ngi noonu li moo nekkoon seen émission Cas bu bees xanaa nga daal di décortiquer li nga xam moom moo fi jot a jàll rek su ko def ñu daal tëj li nga xam moom mooy suñu émission mais eh, vraiment mention spéciale tàccul ma ko oh prochain numéro dimanche moom moo koy présenté prochain numéro man moo koy présenté nga xam ne je suis une euh, grande professionnelle. je vais jamais demander. ba <laughs> jeudi. super donc va jamais vous le faire yàlla nañu ko indi kaayu garab bu ko defee. dafa ñeme toogaay ba. <laughs> non dina ba yàgg xam naa ne suba la may woo ma am ah, lan la ñuy kaa. <laughs> waaw ba tey laa jox alibi. wala ñu jox ma information man la dootuma ko waxati. parce que boo paree dag may pees rek. division de fausse information ak diffamation ah. nañu ko en tout cas félicitations donc voilà mois de mars donc on a tenu honneur encore une de plus am solo donc loolu waral tey sans place donc ma jox ko ki nga xamante moom mooy Ami Collé macha allah donc moom moo nekkoon à la présentation ma toog place am tey euh, remplacer ko donc ci kaay na noonu la. Euh, jéggalu tamit ah parce que voilà on sait que bëgg ngeen émission bi la mais lii ak fën bi ak kaf beeg rey mënu ci ñàkk parce que loolu la mooy concept émission bi ay cas la ñu waxtaanee mais à notre façon apporter du fun aussi joindre l'utile à l'agréable donc loolu la mooy concept cas bu bees donc ça été un plaisir yaay booy kontaan bu baax a baax remercier bu baax a baax aussi sénégalais yi doon toog di ñu seetaan ñu ngi jéggaluwaat bu baax a baax <laughs> ah man xanaa nag wax dëgg yàlla nag di la gërëm euh, la grande présentatrice de tous les temps sur Sénégal 7 rawatina ci suñu émission Cap Bess vous pouvez venir me prendre je suis là devant la porte de la Sénégal 7 ok <laughs> mon amour ma vie. tey émission bi ñëpp la ah ci noonu rek di jaajëfal di jaajëfal internet yu ñu doon seetaan. <laughs> waaye nee naa ko un une un ou bien une grande merci. un grand merci un grand merci à madame Ndiaye. Mm-hmm. un chapeau. dañuy dàq ñun à madame Ndiaye. macha allah. a aussi macha allah monsieur Ndiaye. Mm-hmm. ndax nag nee naa ko metre ñu dans de très bonnes conditions mettre ñu à l'aise rek. dafa mm-hmm. doy vraiment. boo lekk ku nga xamante ne nii liggéey nga fi rek dooni amee na la fukki dërëm. wala ñaar dërëm nee naa ko moom ak may mën a fay nduur chapeau. ak la grande diva la voix d'or ñii ñoo nekk jigéen yoo xamante ni réew yi bu defaroo seen loxo jugu ci. ndax yamuñu dañu teral dañu fay rek. waaye saa bu ñu organiser yu mel ni mbiru jigéen ñi rek ñëw nañ ci seen jëf ak seen jàmbaar ak seen jom te duñ ci daw dara parce que ki lay fay ba di la wisal ëlbatiku macha allah weer mënut a jot mu amee la dërëm. dërëm booleeg lu mel ni mars xoolal tissu yu yi ñu jëndal. dëgg la xool de classe ñoo de classe madame Ndiaye dafa fay ci dara mu teral ñu. ñoo teral c'est à solliciter. macha allah c'est à honorer. Mhm. c'est à saluer. un grand merci encore une fois à l'équipe de Sénégal 7. a applaudissez-moi s'il vous plaît <laughs> macha allah ah, ah, euh, bu ñu fàtte aussi tamit ah tey dañu am anniversaire ci kër gi. waaw euh, Mouhamed. Ah! le cadreur. de la maison le 5. Mhm. mars c'est son anniversaire sama jumeau la mois de mars donc ñu koy souhaiter bon anniversaire Mohamed bu mhm. Sénégal 7 nekk liggéeykat tarkaal la tey ñoo àndoon bu so voilà nekk boy bu am jom te li ma neex ci Sénégal ay xale rek la ñu recruter ay xale ay équipe de jeunes boo xam ay de talent ay polyvalente waaw macha allah macha allah Mohamed happy birthday to Mohamed Happy birthday to you. gâteau bi am na sokola gâteau bi am na ceebu jën. gâteau bi am na maafe gâteau bi am na mbaxalu saalum buusi buusi buusi merci beaucoup anniversaire à toi Mouhamed ñu lay ñaanal longue vie totale santé prospérité et beaucoup d'amour li nga bëgg sa xol yaa ko xam yal na la ko yàlla defal mu nekk un jeune boo xam ne vraiment liggéeykat la doon jàmbaar man damay naw xale bu fekkee dafa bëgg liggéey damay naw genre xale boobu parce que àdduna foofu la toll ah lu waaye mën a def te liggéeyoo mook zéro ñoo di remercier Dame Ndiaye encore une ah fois ci simplicité loolu dama leen di teral li ma sooda bu sa jox xaaral jëlal dix mille maa la ko jox sama caaxaan anam non mi ngi ne ci sac bi jël ko waaw teel ma sama sac bi bala moo dem ci sac bi wattali ajam waat ko <laughs> ci sëñ Abdou Karim yow yaa may may yow yaa jëwal <laughs> eh, bi xala fi mujj yow wattali ci sëñ Abdou Karim Mbacke borom ak xalimal tout sa ça. yaa ngi dégg ça dit réellement. Mm. <laughs> merci beaucoup di di di nuyu Eva Awa Mbaw sama petite sœur d'amour boobu moom ak Mariam Guindo sama manager ma di leen nuyu bu baax a baax a baax di waaye di nuyu Mami Ndéna Kay sama rakk jooju bàyyuma kenn di nuyu ki nga xam moom mooy Cheikh Yade di entrepreneur macha allah nekk fële ca Thiès di waajal bés bu am solo boo. xam ne mi ngi tabax ca entrepreneur yi boolewuma ca moo tax muy entrepreneur yi xam naa <laughs> ka kay tabaxal lay nuyu bàyyi na ma. nee na soo yaatu <laughs> dafay tabaxal Cheikh man danga tabaxal yow. tabaxal na la tabaxal ma. ayca l' émission tira à sa fin incha allah ba jeudi prochain buñ ko fekkee tatal ko ci barke Yonent bi. c'était amical la au revoir nuyu ma Soda Bousso tey dama teral. Soda Bousso nuyu naa la ci teraag nga tega tera ajimaas waaye téqagu ma tax mayagu ma ci. nan dem bu subaa. ayca dans la terrain ku ko jëndee jar nga ko. au terrain léegi maa ngi toujours au terrain. <laughs> je laisse maintenant émission. bu soobee yàlla ak Yonent bi. merci